gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ak mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar euh, xëy na sax am na ñu may woo ci ay émission waaye lii may bëgg a wax nii dafa xaw a urgent moo tax ma ne naa ko def enregistrement rek ba pare muy nii lii kàddu yi ma dégg abbe bi wax ko ci bi nga xam te ni Ousmane Sonko wax na ci wàllu école yi ak yu mel noonu kàddu yooyu nag xëy na jullit yi mel na dañ ko disee dégg bu baax moo tax euh, li may njëkk a wax nag mooy ñun suñu pas-pas ñun jullit ci Seydina Isa mooy dañoo gëm ni ab yonente bi yàlla la bépp jullit bu wedd ni Seydina Isa du yonente rek doonatoo ab jullit waaye ab yéefar ngay doon laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli moo tax sax am na ci nusuus si xadis yoo xam ne day wax ni wa anna isa nabiyullahi wa rasuluhu maanaam yonent bi mu ay na ngeen leen wax ni isa jaamu bu yàlla la di ab yonenteem di ndawam lu mu yónni kon ab julit loolu la bokk na ci li mu war a gëm ñun i isa Elias ak Idris ak Moussa ak Souleymane ak Daoud ak kum ci mën doon ak ñiñ ci xamul sax far ku julit bu wax ni kenn ci ñoom du ab yonente rek julit boobu génn na ci lislaam ndax dafa bokk ci pas-pasu lislaam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 bañ fa fekkee Najaasi muy ab chrétien bañ leen jaxasee ak moom ba Najaasi laajee yéen jullit lan ngeen gëm ci Seydina Isa Seydina Jaafar radiallahu anhu wa dafa taxaw ni ko li gëm de mooy Seydina Isa jaamul jaamu yàlla la ndawam la du doomu njaaloo kenn reyu ko waaye jaamam yàlla ndawam lu sell yàlla bind ko boole ko ci yonente yi mu gën a fonk muy ulul azmi rasul yonente yi mu gën a fonk muy ulul azmi min rasul moo tax Seydina Najaasi booba la daal di adopté wax nañ ni sax loolu moo dugal lislaam ci biir xolam ba ba mu faatoo yonente bi sax jullee ko loolu ñu xam ko mu leer bi ci tege mooy ñu xam ni wax yi nga xam ni ne abbé bi moom la wax maa ngi gis leen ci ay ustaas nag di ko layal ak di wax naan abbé bi kat ñun ñoo warul suñu école yi bopp ñoo ñàkk fay dañoo dem déedéet ñun ñàkkuñ fayee de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 loolu nag pas-pasam lay jéem a dëgëral xëy na ndax croix la trinité bi nga xam ñun ñëpp xam nañ ko loolu nag offensé l'islam munta weesu munta gën a rëy lii ndax alquranul karim moo ñu wax ni wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum seydna isa rëyuñ ko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 kenn wékku ko ci ab salit ñun ñun jullit yi buñ gëmee nañ ko wekk ci ab salit dañoo weddi alxuraan karim kenn wékku ci ab croix moom yo seydina isa alayhi salaam ki noonu it kenn reyu ko bal rafaahu llahu ilayhi la alxuraan wax yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko moom moo tax ñun jullit yi xam nañ ne seydina isa ak seydina idris am ñu ci boole Ilias am ñu ne Idris mooy Ilias wala Iliasine ñoom ba tey ñu ngi ci kaw suuf di dund am nañu ci boole sax seydina xadir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 li dem yonent yëpp lislaam lañ indi xanaa kay dañ fay jóge si nit taxrif ko yàlla mujj mer wàcce lislaam ji nga xamante ni alquran mooy muhayminan alayhi dafa folli téere yi ko weesu woon yëpp niki noonu it yonent bi alayhi salaam nekk xaatamal anbiya ki mujj ci yonent yi alayhim salaam mais Seydina Isa sax moo ñu xibaar ñëw yonent bi alayhi salaam wa mubashiran wa bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ma leen di bégal ci yonent boo xam ne ñëw sama ginnaaw tudd ahmad muy Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax yonente na yonente ay doomu bàyyi lañ seen ndey yi rek moo wuute al anbiyaau abnaau li illaat abuhum waaxid wa ummahatuhum shatta kon ñun jullit kon li ñu gëm mooy lii ñu alquran nett li ci Seydina sa te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Isa waaye du woote waat ak yonente ndax xaatamul anbiya moom mooy yonent bi lii nag jurit bu am complexe wax ko dangaa dëgg wut ci sa diine waaye lii mooy dëggu yàlla gu wér gi lii mooy yàlla gu gi amaa nag muuraay yi ak yu mel noonu muuraay moom lislaam def ko digle digle gu war yudniina alayhinna min jalaabibihinna yudniina alayhinna min jalaabibihinna maanaam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 te gëm lam gëm te bàyyi